militantes, militants de la grande majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu nag euh, forte mobilisation bi nga xamante ni def ngeen ko ñëw tey ñu war a jàkkaarloog askan bi wax si choix bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall bi nga xam ni. le président de la coalition Benno Bokk Je joxe le prochain le prochain candidat de notre coalition lors des élections du 25 février 2024 Nous xam que le président Macky de Bruno renoncé né le deuxième quinquennat Et yoon

motax tax man sama gëm-gëm mo doon président rek mom lañuy top choix moy suñu choix bëgg bëgg moy suñu bëgg-bëgg ndax ñepp xam nañ ni lu muy wax loyauté engagement fidélité ak dynamisme amna ci ñun amna ci bëpp responsable bu nga xamanteni tok lu fi bok Benno bok yakar and ak son excellence le président loolu tey jotaay bii da koy wane ndax euh, jotaay bi jàpp naa ni képp membre de la majorité présidentielle ñëw nga répondre à ce communiqué day wane ni Thiès la coalition Benno Bokk Yaakaar est bien représentée ndax ñi toog fii yëpp benn gëm-gëm la am benn vision la am mooy accompagner la vision de son excellence le président Macky Sall ñëpp nag am nañ li ñuy wax discipline de parti ndax bi président Macky Sall tànnee ñun ñëpp dañoo ànd si tànn bi nga xamante ni ba ko doon def aussi def na ko dans les règles de l'art ndax tëbul rek joxe candidat ndax ku xam président Macky Sall xam nga c'est un démocrate c'est un républicain mais également nit ko xam lu muy def da ci bolé ñëpp day def une démarche inclusive donc nak lolu mu def tok ay semaines pour xol kan moy le meilleur profil pour la continuité de l'émergence Sur doyen Brin wax na ko sànq dafa am 4 points yo xamanteni mom lañu tanné candidat te man mii di président Ablaye directeur général de l'AIBD li ma si gën a jàpp la continuité du plan Sénégal émergent parce que nous nag président Macky Sall dañ ak programme programme nous ñu gis réalisé nous nekk lu sur le plan international kenn mënatul wax leadership te nous citer son excellence le président Macky Sall muy référence à ñun ñun nous amuñu kenn nous xamante ni moom exemple sur le plan international sur le plan national ku dul son excellence le président Macky donc nag di wax ni tan bi mu tan def nako ci xel mu dal mais également def nako ci si yaatal ba tax tay mu jël décision tan le premier ministre Amadou Ba pour mu mën jité jiite suñu coalition no Bokk Yaakaar pour dem gagner les élections de 2024 Tan bobu nak la wax ni ñun kenn duñ ci jitu kenn du jitu si liggéey bi liggéey bi nag du dara dudul bolo d'abord ndax bolo moy doole j'appelle à l'unité à tous ceux, ceux qui se réclament un jour que Macky Sall a été ton président de la République képp koo xamante ne jàpp nga ni Macky Sall nga gëm tey bu tànnee ne ñëpp ñëw ñu àndandoo booloo accompagné ki nga xamante ni moom lañ ndax nag c'est l'heure des grands ensembles la coalition benn bokk yaakaar moo nekk coalition bi nga xamante ni moo gën a yàgg ci coalition yi mës a am fii ci Sénégal yëpp te nag du coalition boo xamante ni mës na ñàkk ay élection donc nag tey maa ngi lancé un appel à mes frères et de la coalition benn bokk yaakaar Thiès parce que ñun nag bu ñuy wax Thiès moo tax mu ñuy wax ndax Thiès lañu am Thiès lañu ñu gëm

boole suñu xel boole xalaat ci comme sama sœur honorable may ci ndax sama pétition un million de signatures, bëgg traduire ko en acte nekk ay électeurs on va gagner incha au premier tour l'élection de 2024 avec notre candidat le premier ministre Amadou te loolu nag pour ñu def ko du ay mbumbaay du ay xalaat yu bari parce que toog ci bureau yi di réunion je pense que ni euh, li ko ëpp mooy wàcc ci terrain def ay porte à porte def ay visite de proximité sensibiliser jeunesse yi wax ak jigéen parce que jàpp naa ni tey kenn mënul wax gagner élection fii ci Sénégal particulièrement fii ci Thiès te waxoo ak jigéen je tax remercier cette forte présence des femmes yi nga xamante ni li leen ñor mooy développement te nag jigéen lu mu ànd jàpp naa day mais également de lancer un appel à la jeunesse de Benno Bokk des jeunes dévoués des jeunes engagés mais également des jeunes loyaux parce que jeunes sont boo fi gis rek engagement gëm président de la de la république Macky Sall nous devons être cette de lance pour remporter ces élections de 2024. Donc je lance encore un appel j'invite tout le monde à être unis, à se mobiliser autour d'un cadre unitaire. Parce que également, ce may wax mooy benn c'est du je man tey Je ma jógee nii dama bëgg a veux locomotive su ma amul ay yu je pense que ni eh, li nekk sama gannaaw bu ma du ma ci

pour l'avenir de notre pays ndaxte président Macky Sall liggéey na fi loo xamante ni waruñu ko bàyyi muy naxasaay jàpp naa ni candidat bi nga xamante ni tey lañ fi teg di premier ministre Amadou Ba euh, jàpp naa ni bu dee président Macky Sall liggéeyal na ko ko ba donc nag tey moom dafa ñëw pour la continuité mais également dafa ñëw pour renforcer euh, liggéey bi nga xamante ni moom la président Macky Sall teg jàpp nañ ni eh, si xarañteem si expérience ci poste yi nga xamante ni occupé na fi ci Sénégal kenn wul ni Amadou Ba war na euh, répondre na critères yoy pour mëna a liggéey bi nga xamante mom le président Macky Sall sum donc ñun wa Thiès nous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du wax sax responsable je dirais militante et militant parce que ñun ñëpp ben cause lañu am moy aller à l'assaut de

déggoo am li des mooy ñu wacc terrain bi liggéey ni xam nak nag Thiès moo war a élection yi di ñëw ndax kenn naatablewul nag ne am na ay yenen candidat déclaré yu nekk fi di Thiès mais nak ñun rek tous réunis c'est sûr que on va gagner les élections au premier tour donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di kontaan su Euh, du ma mais dama ci simpi rek suñu doyen Brin su ma ko santee gërëm ko nuyu naa mag ji fi nekk ñëpp bu ma jëlee Adja Marème Diop si la nuyu naa jigéen ñi fi nekk ñëpp su ma jëlee Farba nuyu naa jeunes yi nekk ñëpp mais nag beral na yow spécialement les femmes jàmbaar madame si Aminata Gueye bi nga xamante jàmbaar la elle a fait une forte mobilisation pour que bés bi mën a sotti